seen émission face à Pape Alé mooy président Pape Diop nekkoon fi président assemblée nationale président sénat ñu gis mu yor partem bokk gis-gis euh, président laaj bi mooy yokkum courant bi bett na la wala bettu la parce que déggoon naa yéen seen biir campagne candidat bi ngeen àndagoon ak di Idriss Seck en l'occurrence mooy wax ne bés bu génnee ci campagne bi mm-hmm. lépp loo leen di dundee day yokk mm-hmm. waaw xam nga be bettuma Euh, parce que lu lu lu président Macky Sall ñaanoon bailleur de fonds yi la. Ah. moo leen waxoon leen may leen ma ba ma génn élection yi. donc mais lépp dina yokk parce que situation économique et financière bu réew mi moo baaxul. bailleurs yi njatt ko mu ni leen mënuma yokk te élection yi nekk fi bu ñu ciy génn rek ma yokk affaire yi booba tey nag mi ngi yokk mais lenn moom a jaaxal ci courant bi moom. xam nga courant bi mille 2017 ñoom dañ ci wàññi woon 10 pour cent ba pare ni di mille 2019 ou 20 dañuy wàññiwaat 10 pour cent 10 pour euh, parce que en ce moment danañ mën a satisfaire la demande nationale ba bay. jaay courant exporté kay di jaay courant bitim réew. waaw mais diggante bi li fi xew moom laa xamul lan la d' autant plus que société bi ñoom ñu ko wax Akili mm-hmm. ci rapport bi mu def nii dans les euh, années à venir Sénélec dina def perte mille deux cent et quelques milliards te te te foofu la ko jëlee moom ci biir ça veut dire que dañu makki woon donc chiffres yi di nax yi en direction de de de l'élection présidentielle mm-hmm. moo tax affaire bi ëpp leen doole mais man je pas aimé leur façon de communiquer par rapport à l'augmentation parce que am arrogance parce que non seulement dafa am arrogance mais bu bu amee au lieu nga jéem a seet communication bu ànd ak dëkk nga naan dañu bëgg différence bi entre am entre les zones urbaines et rurales moom la ñu bëgg a euh, diminuer kon lan mooy njëriñu ASER euh, wax dëgg yàlla loolu mooy jéem a jaxase population yi dëkk Sénégal ndaxte àll bi dañu war a am courant comme dëkk bi waaye nag loolu taxul ñu ñoom ñu ñu ñu yokk courant bi ñoom kay euh, yaakaar naa ni euh, Sénélec toll na foo xam ni war nañ ko auditer nag xool parce que mënuñu d'année en année problème yi di am mm-hmm. euh, contribuable yi di gën a sonn Euh, xaalisu réew mi di ci dugg te du dem fenn te aussi ancien directeur bi dama déggoon président bi tagg ko ni lu liggéey bu baax la fa def waaye waaw il comprend vite waaye waaye liggéey ba wax dëgg yàlla résultat yi ñu ngi koy commencé gis kon yaakaar naa ni war nañu seetaat Senelec moom war nañ ko seetaat bu baax a baax euh, d'autant plus que année yi passé dañ fa injecté xaalis yu dul jeex état bi xaalis yu dul jeex mais du jëm fenn fenn fenn te facture yi tous les jours ku ci nekk yaa ngi naan sama facture dafa yokk loolu man mosuma ko gis bët ki démb benn kii daf ma wax ni ma benn industriel moom dafa nekk en arrêt waaye facture yam daan fay moom lañ koy jox ba tey te liggéeyul te liggéey ma laaj benn cadre bu nekk Sénélec mu ni ma grand compte la nekk bu dee grand compte dafay am montant boo xam ni c'est fixe waaye montant ba ba ma ko xoolee réewul ay cent soixante et quelques mille ou cent quatre-vingt et quelques mille euh, montant fixe la bu muy war a fay mhm. d'après li ma kooku wax ndaxte ñoom même en cas de délestage kenn waru leen délester ma ni ko kooku de nee na ma facture yi mu yoree moog yam daan fay presque benn la. mais ça suppose que sax mu liggéey. te liggéey mais te liggéeyul te liggéeyul. bu nekkee en mooy amul benn machine buy fonctionné. benn benn machine buy fonctionné. loolu nga xam ni euh, peut-être am na ñu koy def ñu bari te boo boo kiyee ñu coupé la boo fayul ñu coupé la. Mm-hmm. alors donc dans dans ces conditions là économie réew mënul dox mënul dox. parce que énergie mooy doxal économie réew bu énergie ba chéré ba pare am njuuj njaaj yooyu ci biir day nekk loo xam ni nag loolu les gens dañu dem ba entreprise yi doon dootuñu ko mën a attan gëm nga li mu wax ci endettement bi nee na endettement bi jaruñ ci tiit parce que le Sénégal mën na fay endettement bi te tolloogun fu ñu ci tiite oui parce que xam nga nga endetté boobu en prévision de l'exploitation des ressources naturelles bon loolu naan bu ñu tiit mais war nañu tiit parce que taux bi moo moo moo moo moo moo eh, normes yi il s'y ajoute que réew moo xam ni eh, endettement bi non seulement endettement traditionnel bi bi nga xam ni c'est avec des grands bailleurs de fonds mais on a vu un pays comme le Sénégal depuis 2012 tous les deux mois nga procéder nga dem dans le sur le marché obligataire pour procéder à des emprunts obligataires tous les deux mois boobu mujj bi xaw ma trente cinq milliards xaw ma mais Pape les pays sérieux dañuy toog ba am un problème boo xam ni. c'est ponctuel c'est ponctuel ñu lever vraiment des fonds cinq cent millions six cent six cent milliards sept cent milliards ñu lever ko def li ñuy def. waaye ñii depuis Amadou Ba combien d'emprunt la def kenn xamul kii bi mu ñëwee la même chose mais un état sérieux qui a une situation financière euh, saine mënul tous les de mois mu def emprunt obligataire yu rëy yi ñu bëgg a dugal TER BRT moo tax ñuy def seen emprunt yooyu ah mais ma man pour man du loolu parce que <laughs> pour pour man projet yooyu boo koy def day fekk nga am source de financement au plan international bu wóor nga teg mais dafay bëri ay avenant avenant yi kay moo eh, dañ lay wax si six cent milliards suba boo calculer ñoom seen biir sax <laughs> kii da lay wax six cent milliards suba kii ne la sept cent kii ne la mille euh, ñoom seen biir maintenant il parle de huit cent mais au début c'était cinq cent cinquante et quelques waaw yooyu lañ waaye mais maintenant ñoom les gens disent mille deux cent ñoom nee nañu finalement nee nañu c'est huit cent et quelques alors milliards donc mais tout ça. mais est-ce que yow boo nekkoon président da nga nangu def ay. ay ah non non non non mais mais mais mais jariñul dara le BRT nag boobu mooy projet bu gën a bon bi parce que dama waxtaan ak ñi nga xam ni ñoo ci nekk di ci liggéey. Mm-hmm. ñu ne ma woy on a fait nos études on a on est parti de de de euh, trois cent mille personnes en déplacement tous les jours de géeje waaye en passant par Parcelles jusqu'à Dakar ma ni leen mais yéen. c'est pas possible le BRT là ne va pas transporter cinquante mille personnes par jour man leen mais ñëpp du ñu xëy dem Dakar Géejawaay am na ñu fay xëy di liggéey feneen. eh ñi dem Yaraax ñi dem feneen alors mais boo seetee impacté yi rek fi muy jaar. Euh, liñ ci mais regarde par exemple l'avenue euh, Dial Diop. Mm-hmm. moo jaar cosaan. Mm-hmm. jaar jaar foofu ñëw jaar ancienne permanence PDS. Mm-hmm. xam nga permanence ancienne permanence yeeg yooyu yëpp day sauté. Mm-hmm. jaar noonu jaar ci station Total bi centenaire sauté dem. et puis fële la yemi nu mu tuddati euh, comment dirais-je Petersen mais des projet comme ça pour trois cent milliards. te après au finish ils vont te dire six cent ou sept cent milliards parce que comme avenant yi avenant yi mhm, donc euh, vraiment réew kenn du ko yore noonu réew dañ koy yore ci ci ci ci ci ci ay plan de développement euh, bien établi exécuté régulièrement mais kenn jóge fële rek wax la benn projet rek nga ni ay ca dafa mel ni ci loolu la ñuy doxee terre baa ngi nii ak tous les problèmes qu'il a ba tey dara sotteegul. nuñ cee def ah, dara bu ñu jot daat bu ñu joxe mu mu paase. et puis on verra au finish ba mu ñëw ba xam dina rentable ou pas c'est ça le problème. xam nañ la tamit nga bëgg lool euh, yëngatu ci wàllu mbay. gis nañ ne ren commercialisation arachidière hmm. ba chinois yi ñoo di jël gerte gi di yóbbu Sonacos na ñoom amatuñ ci dara ci wàllu tonnage. ah oui loolu problème de planification la. wala problème mu lan la. non xam nga euh, euh, problème bi c'est en amont ndaxte bu fekkee ni jiwu yi ngay joxe baaxul ensuite euh, matériel agricole amul engrais bi. ñi ñu ko jox xamuñu lan mooy engrais fañ koy jëndee ay ay produits périmés lañ leen di jox. mais ren la production est mauvaise loolu mooy problème bi ren est-ce que am nañu cinq cent mille tonnes d'arachide est-ce que am nañ ko bañ daan wax un million nangam benn bis dama dama defal benn waay bu nekk benn waay bu nekk ministère mu ma ah moom moom ma njëkk a jox euh, il y a deux ans ou trois ans lu ñu prévoir ci ci ci récolte c'était un million je crois deux cent mille ton il y a trois ans ou quelque chose comme ça ma ni ko waaw sëriñ bi <laughs> yéen loolu moom doy na war di loolu ngeen am mu ni ma waaw ma ko waaw baax na ba commercialisation ba yëpp jeex année boobu Sonacos ak huiliers yi tout le monde réuni avait acheté quelque chose comme trois cent quatre-vingt et mille ton man ma arrondir ko ak quatre cent mille. sori na un million yi nañ waaw mais négal rek ma ni la consommation nationale ma peut-être estimée à cent mille mais ma ni deux cent mille ma bind sama kayit deux mille. les semences c'est soixante-dix mille ma bind cent mille. ma ni waaw ñiy exporté muy chinois yi muy turki yi à l'époque ak indien yi plus Sonacos ak ak ak tous les autres huiliers consommation nationale yëpp eggul un million huit cent mille xawma mais xam nga ni ñuy defee ñoom euh, seeni rendement dañuy jël lu leen neex surface emblavée temps euh, par multiplié par six six tonnes ou sept tonnes fekk na on a euh, en récolte deux tonnes à à l'hectare ñoom ñoom nañu communiquer rek sur les chiffres. Mais